أجمعين سلام ربنا دائما نعم بصحبهم waa ñu ngi am mbégte bu rëy ci teewaay bi fii tey amoon nañu yéene sax fekkee lenn ci burdu bi waaye dañoo newoon bitim réew ñibbisi si démb moo tax tey ñu teew si fii waaye bi ñu gis nañu yaatu ouverture bi nga xam ne xalif bi wane na ko ci bi ñuy dugg dafa fekkoon muy waaj mu war a génn waaye bàyyi na li mu doon def dalal ñu jël temps bu bari waxtaan ak ñun tamit di waxtaan diggante euh, sëriñ ak taalibe waaye di waxtaan surtout diggante bàyyi ak doom ndax ay ndénkaane la yoo xam ne joxe na ko ci li nga xam ne gannaaw daayira bi mu waxee ci lan mooy solos gàmmu gi nga xam ne lépp ci euh, bëgg a màggal ki nga xam ne moom la yàlla yónni ci ñun jullit mu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi mu waxee ci li jëm ci gàmmu gi ak lan moo ko waral ñu jàpp ci li mu wax surtout ci ngen ci ngën ji mbindeef mu yent yàlla yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñu jëlee ci ay ay ay leçons yu am solo jo joué na aussi role bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci kilifa diine yi mooy joxe na ay ndénkaane ci li nga xam ne mooy suñu wareef ñun ñii nga xam ne ñoo féete mbirum àdduna su dee noonu lañ ko mën a waxee parce que mbirum àdduna amul amul lenn loo xam ne nit ki dina ko def mu yem ci àdduna lépp loo fiy def rek am na jeexital euh, fi ñu jëm mooy euh, suñu mujjantal ci kanamu yàlla waaye ci waxin la comme dañ naan toujours dafa am ñu féete diine gi am ñu féete mbirum àdduna joxe na ay ndénkaane ci li nga xam ne mooy li mu jàpp ni mooy suñu wareef ñun mooy nu mbir mi métti métti métti nu jàmmarloo bi métti métti métti nu xëccoo bi métti métti métti kenn ku ne na fexe ba lu muy def na ci digg doomu na ci digg doomu ci kàddu waaye na ci digg doomu it ci jëf ndax nun ñëpp a bokk Sénégal te senegal ñëpp mbokk lañu ñaar ñiy xëccoo wala ñuy jàmmarloog boo xëccoon ba xëcc di nga fekk am na fu ñu bokk wala am na fu ñu daje ci ay ci mbirum deret wala am na fu ñu bokk ci mbirum alliance kon Sénégal réew mu ndaw la ñun ñëpp ñu bokk ko kon ñoom seen rôle loolu la mooy toujours wàllu moral bi wàllu spirituel bi ñu ñuy fàttali ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci beneen fànn wi ñuy dellu si ci valeurs yi nga xam ne moo war a jiitu wala mo war don lay tay ci suñu action kon wax deug yalla amna ñu mbekté bu reey reey tay ci ñew gi euh déglu nañu kilifa gi bu baaxa baax wax nañ ko tout it ci li nga xamné moy suñu gis-gis ci Sénégal ak lan mo waral ñu ñuy xex def na mënuñu ko woon ñàkk gaaral lu mel nonu wax nañ ko ci waye waaye wuñu ci ndax bëss bu mel ni du bésu politique donc kenn du fi ñew pour def politique ñun ñew ñu fi won pour def politique. gannaaw loolu it sàkku nañu ay ñaan mu defal ñu ñaan euh, yoo xam ne am nañ ci yaakaar bu baax a baax ni yàlla dina ko nangu. waa li ma wax léegi rek bi ñu duggee ci biir mooy Sénégal dañoo am chance bu rëy te li may wax ni moom laa bindit ci sama téere bi ma bi ma génnee fan yéle mooy jafe-jafe yi ñu am Sénégal yëpp ci wàllu état ak ci wàllu institution ñun ñëpp xam nañu suñuy institution dëgërul suñuy institution rôle bi ñu waroon joué joué wuñu ko du ci wàllu assemblée du ci wàllu judiciaire bi ba tax dafa mel ni lépp dafa tënku rek nekk ci loxo benn nit loolu réew mu mës a am rek problème yu bëri am na fa waaye ñu gis ni Sénégal li am ci réew yu bëri ba indi fa ay guerre indi fa ay xiiroo ngaay yu bëri loolu mosul am Sénégal lañu ko may nag mooy rôle bi nga xam ne régulateur sociaux yi ak diine gu ñu mun a bokk ak tarixa gi ñu mun a bokk régulateur sociaux yi yàgg nañ ko joué ci réew mi loolu nag ràññewoon nañ ci bu baax euh, Al Amin mi nga tudd nga xam ne ci wàllu diine gi ñëpp xam nañu rôle bu mu doon joué pour euh, jokkale ak jegente jegale euh, këru diine yëpp waaye weesu na sax këru diine yi diine yi si boppam

élite politique yi léeg-léeg moom mosuñoo am yenn problème te yàlla bu buñ ko musa am ilaa yow mi diin ajmaina salaama rabbina daiman ama bi sahbihi